sénégalais yi moom mënuma ma leen a fay mënuma ma leen a fay maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax euh, sunu yéene rek la ñu am te yéene yàgg naa dugal borom yéene boobu nag moom moo ñu dugal ci lii fa ñu nekkoon yéene moo ñu fa bàyyi woon fii ñu nekk te yéene moo ñu ci dugal yéene nag ak itte dañoo xamul soxla boo xamante ni ci kaw su xaj na ci loolu moo tax ñun li ñuy ñaan sénégalais yi ak sénégalaises yëpp mooy ñu gën a am itte ci dimbalante ñu gën a am itte ci bennoo ndax ba ci Cheikh Ahmad Bamba contrat moral bi nga xam mom la amone ak yunus bi alayhi wasallam bi mu ko feño loolu la waxante ak mom rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat himma boobu mom moy volonté volonté nak ci lu mu am volonté politique sax la wax volonté ci lu mu am loola day tawfeex mom mo ci am donc buñu andé jappo jàppoo jàppante ci deug suñu borom dinañu defal lo xamanteni ni mo kawé suñu jot donc je pense que né loolu sénégalais dal wax deug yalla man cant la len amel ak ngeureum cant bu baax ak ngërëm bu baax di leen ñaan tamit ñu gunge xam nga réew mi moom soo ko bëggee am ci yéene ndono la ndax da ñëw ci réew moo xamante da nga fay fekk ñu xam ay jàmbaar lañu woon euh, imaam wax na ko léegi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ci itte joo xamante ni amoon na ko ngir réew mi sunu borom daf fi taw feex keroog ba mu liggéeyee lay yonent bi salaatu wasalaam liggéey bu rëy boobu ak sunu borom si Gabon bi muy ñibbisi ba ñibbi si jotee ijjaxal rujjoox yi ilaa xaw mii la wax saxan detana wal tag fi naa yow ma jam xel xalqi niiraana donc mooy li nga xamante ne amee naa ko ci tukki bi dama lay maa ngi ñaan nag dem bokk ko ak ñi nga xamante ni mooy suma askan ñun nag suñu astuut ci xam-xam sunu temps suñu énergie suñu ittee dañ koo bëgg a bokk ak sénégalais yi yéene moo ñu mës a teg fépp fu ñu mës a egg fépp fu ñu mën a nekk fii ñu nekk tamit tey jii yéene ju mat së lañ ci ànd ak itte ju mat sëkk nag lañ ci ànd fooye ko caaxaane ko dañ ciy fas yéene liggéeyal sunu borom liggéeyal ci yonante bi salallaahu taala alayhi wa sallam liggéeyal ci Cheikh Ahmadou Bamba liggéeyal ci magu réew mi yëpp sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax ceux qui vivent sont ceux qui luttent adduna lépp xeex la adduna lépp euh, taxawaay la àdduna lépp itte la ku nekk nag dangay nekk ci li nga war a nekk ku mucc suba ba ngoon jot suñu borom moom moo la musal waaye yéene ak yitte ju mag ak euh, yéene nit ñi jàmm ak yéene sénégalais yi jàmm suñu borom moo ñu wërsëgal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi.